mbokk yi asalaamaaleykum jërë ngeen jëf ci ànd bi ak Rewmi FM daleen ak jàmm ci seen euh, émission démb ak euh, tey tey nag ni ngeen ko déggee ci band annonce bi dañuy euh, waxtaanee ku mag ku màgg ku fi bàyyeekoo yàggul dara am itam njeexital yu bari yoo xam ni bàyyi na ko fi surtout ci presse bi muy euh, ndem si yàlla Babacar Touré euh, PDG euh, président directeur général fondateur itam bu groupe Sud Communication ñu am nag tey mbégte mu rëy itam dalal suñu beneen doyen di ma Madiambal Diagne nekk président directeur général groupe Avenir Communication xam bu baax ndem si yàlla si ñu ngi lay nuyu doyen di la ziyaar am mbégte lool dalal la ci waxtaan bi maa ngi lay fay di la ziar yow tamit ak di ziar suñu auditeurs yëpp di leen nuyu te di leen ndokkeel ci tabaski gi te di leen aussi baalu ak Euh, di leen jaaree li nga xam ni euh, mooy li ñu boole ñun ñëpp muy tiis nga xam ne ni mooy tamit Babacar Touré bi nga tudd léegi. Mhm. alors euh, ni ma ko waxee Babacar Touré mi fi bàyyeekoo am na njeexital yu bari yoo xam ni bàyyi na ko fi ci liggéey bi ndax tey yaakaar naa dinañu dugg bu baax a baax si xeex bi mu doon xeex ngir presse moom boppam mais fi ñuy tàmbalee mooy kan mooy Babacar Touré ndax dégg nañu la seede bi nga yëkkati mooy nga ne ki gën ci ñun moo dem tey donc boo ñu mënee wax ki dem mooy kan Babacar Euh, ki dem mooy kan dina jafe ñu wax ko ba boog duñu ko mën a matale ndaxte Babacar ku nekk dafa am cër boo am ci moom ku nekk am noo koy gisee ku nekk aussi mu seq ak yow kóllëre ak teraanga te ñu ràññee ko ci liggéey boobu nii euh, ku nekk gërëm na liggéeyam ku nekk nawloo na ko ci euh, kon ku mel noonu booy wax mooy kan day jafe. Hmm. ndaxte ku nekk am na noo koy gisee ku nekk am na loo xam ci moom. loolu ni sa morom am na xam na ci moom lu ko ëpp. Mhm. Euh, li nga xamante nag ci ka yu gàtt li ñu mën a wax ci Babacar Touré mooy bu ñuy wax journalisme ci Sénégal. Mhm. Euh, seede yëpp man manqué nañu ci euh, ko ci xarañ la ku ci amul la. Mhm. ka nga xam ne ràññee nañ ko ci te kon xam ko ci ab cër. ndaxte journalisme mooy lan mooy man sa métier mooy fonk ko mooy fonk sa bopp tamit ñi nga say nawle la ñu nga seq koog ñoom. ñu mm-hmm. am cër buñ la jox weg la. te loolu la defal na ko Babacar Touré mm-hmm. ci liggéey bi gërëm nañ ko ci. Mm-hmm. Babacar Touré nekk nag nga xamee ni xam nañ ko ci biir réew mi xam nañ ko ci bitim réew. Babacar liggéeyam lépp man na si ni que euh, lii jëmale presse kanam la li nga xam ne mooy dooleel journaliste te wone cër ba nga xam ne journaliste am na ko ci am réew. ci réew yi nga xam ne que réew ñuy tabax la comme suñu réew yi hmm. euh, te ka dafa nekkoon ka nga xam ne tamit daa bëggoon boppam fonk boppam hmm. bëgg li mu nekk bëgg liggéey journaliste ba tax na du mas a nangoo seetaan journaliste ba nga xam ne da ngay yaafus wala nga ñàkkal sa bopp fayda hmm. Babacar dafa jàppale ñi liggéeyal suñu ay nawle lañu ñi ñi ñuy liggéey bi ci presse bi muy patron de presse muy journaliste waaye waxuma la lu boo génnee ci këru liggéeyukaayu presse bi. Mhm. ñi nga xam ne ñoo ci société bi di jëflanteeg journaliste yi Babacar dafa bëgg ñuy jàpp journaliste comme ay nawle. Mhm. journaliste yi tamit Babacar bëgg ñu mel ni que ku leen gis leen a wekk ndaxte aussi nit ki Euh, ñaari ñaari wolof dañ naan guddi dem la gisee la lay ëwale kon Babacar fonkoon na boppam bëgg naa fonk journaliste bëgg na fa nga xamee ni que fépp journaliste duñ ko gisee ci anam ba nga xamee ni que dañ koy xeeb mm-hmm. te loolu nag wax dëgg yàlla Babacar tàggat na ci ay journaliste mm-hmm. namm nañ ci miin nañ ci te bu dul loolu tamit Babacar euh, wax naa la ko euh, ay dimension daa bari. Mm. ndax nekk nekkoon na journaliste nekk na fi président du CNRA ku nekk gis na liggéey bu rafet fi def ci CNRA taxawu presse bi nekku fi gendarme dafa nekk uuf di leen euh, wattu di leen sàmm di leen digal di leen ci li nga xam ne mooy li nga xam ne mooy lañ leen di li ci lay seen liggéey. Mm-hmm. ba mu paree mandaam mu bàyyi fi ay tegtal ya nga xam buñ ci jaar defe naa ni presse sénégalaise dina gën di jëm kanam. Mm-hmm. waxuma la presse sénégalaise mais mën nañoo royee ci presse sénégalaise loolu nii dina jëmale presse Afrique yëpp kanam wala presse àdduna bi kanam. Mm-hmm. loolu wax dëgg yàlla bu ñuy a ci waxu journaliste. loolu mën nañ koo seede ci Babacar Touré te loolu nii ku sa te euh, seede boobu nii ku ko dégg doon ni lii kat du seede boobu nii warta mën a mm. kon loolaa indi nga ni ki gën ci ñun moo dem. Euh, ki gën ci ñun moo dem ci anam yu bari xam nga gën ci ñun. Mm. mooy gën ci liggéey bi. Mm. ku ne xam na ni que Babacar du ci moroomu kenn ci ñun ñi ñëpp. Mm-hmm. Euh, kuy def journalisme luñ la ci ràññee wala luñ la ci xam jàppal ni que Babacar sa maître la moo doon da ngay jàng ci moom yàlla mayee na ko won loolu. fu Babacar jëlee plume am bind. Mhm. ku ne dina xam ne que kii kat yàlla am na lu mu ko may ci mbir mi. Mhm. fu Babacar jëlee kàddoom wax ñu rafetlu kàddu ko. Mhm. yemul ci loolu Babacar dafa amoon yéene joj nii dafa doon taxawal ay këru liggéeyukaay. tey presse privée taxawee Sénégal fii Babacar Touré ci ñi ko xamee ne ñoo ko jëkk a sos la bokk. dinañu ñëw ci ay débeem incha allah. Hmm. Euh, ñu ni deet euh, Babacar nekkoon na ko doon uuf njaboot njaboot nag yemalu ko njabootu boppam. da koo yemale njabootu presse bi wala da koo yemale njabootu Sénégal bari na ay seede yi nga xam ne dégg ngeen ko ci ña nga xam ne xamante ñu ci Badama ak Babacar Adama ak Awa. Mhm. waaye taxaw na ak teraanga yu nga xam ne ak jëf jooju ñi ma sàmba xamu ko ma demba xamu ko. Mhm. kooku ku laa biir am yéene ak nekk nit ku baax moo koy def. Mhm. Euh, terewul tamit Babacar xëy na waxtaan yi dina ko indi. mais ci biir réew mi ci réew mi ni muy doxee. bari na loolu nii lijjanti na ko fi ci loolu nii kenn yëgu ci luy dox jàmm ak luy defar. Mm-hmm. ak luy moytu féewale ci biir réew mi. Mm-hmm. kon ku mel noonu buñ ko ñàkkee defe naa ni que man ci sama wàll bopp a ma nattee bopp. Mm-hmm. xam naa ne mënumaa yem Babacar ci we. sans moom bu nattee xam na ne mënutee Babacar ci we kon nag. maa koy bamtuwaat ci gën ci ñun dem na. Mhm. alors Babacar ay débéem euh, boo ñu ci mënee dikkal ndax yaa ngi ko wax sànq presse privée daanaka boo ko fi njëkk a taxawal euh, bi mu koy taxawal it mënees naa njortu ne taxawal fi lu ni mel yombul woon ci réew mi. Euh, jafe woon na ndaxte presse privée mën nañu amul woon ci réew mi boo fi jamono yi nga xam ni Babacar mi ngi génn di taxawal presse privée boo jël presse écrite. journal gouvernemental rek moo fi amoon. muy booy jël muy soleil. booy jël presque euh, audiovisuelle RTS a fi nekkoon xëy na rajo ak télévision Babacar nekkoon soleil dafa liggéey ak ay nawleem ñu dem ba gis ni ñoom li ñuy gis nii am na leneen loolu ni war nañ koo mën a indi ci lu bees. Mm. mooy kaddu gu wuuteeg kaddu gi nga xam moom la ñuy dégg ci soleil. Mm. ñoom ñu taxaw def seen groupe daal taxaw ni kat nañ kat nañu sempeeku dem taxawal lool nii. mooy indi kàddu ko nii dina a jox ñëpp euh, euh, baat ñëpp man cee gis seen bopp mm-hmm. ndaxte kat ku ne xam na ni soleil nam doon doxee ak gouverne euh, journal gouvernemental mm-hmm. du ñëpp a ci doon mën a wax wala ñëpp ci doon mën a duñu mën a jottali kàddu ñëpp mm-hmm. Babacar Touré taxawal lu mel noonu ak ay nawleem moom lay def sud ci lañ taxawal groupe sud sud magazine ci la sud magazine di dox di raam di raam Boba Babacar bokk ci ki nga xa ni bu ñuy wax Afrique de l'Ouest francophone wala Afrique francophone sax ci boppam ñi fi jëkk a taxawal rajo privé Babacar Touré la doon. Hmm. Babacar yemul woon ci foofu ba jamono méttee mu dem France ubbi LCA muy la chaîne africaine muy télévision ba xam ne dafa a couvrir Afrique. Hmm. Babacar defoon na projet boobu euh, di ci liggéey euh, ndaxasal mooy gouvernement bu mel ni bu Sénégal moo nanguwul woon projet bu mel noonu. Hmm. ba tax na projet bu mujjul euh, mujj gàntal. booba temps ku fi nekkoon. Abdou Diouf moo nekkoon président de la République. kon loolu lépp Babacar euh, ay jéego yu mu def la pour jëmale presse bi kanam. Hmm. pour taxawal ay këru kaay waaye pour surtout euh, dooleel démocratie. ndax dooleel démocratie mooy nga may képp ka nga xamee ne ci réew mi nga bok mm-hmm. nga am euh, sañ-sañ wala nga am moyen mën a yëkkat sa kàddu gi dégg ko sa xalaat ñu xam ko mm-hmm. te loolu ci la Babacar xaloon tànkatu yëpp ci la nekkoon ci la doon liggéey démb ak barki mm-hmm. comme ni nga ko waxee nag yombul woon jafe woon na lool ndaxte booy taxawal lu mel noonu da nga xëy na loolu gënalu ko xeex bi dina bari te bu dee da nga koy taxawal tamit néew doole dafa naa ni que du yomb kon nag Babacar boole ci xarañ. boole mm-hmm. woon ci pas-pas ak pexe. Mm-hmm. waaye boole woon ci fit ak fulla ak fayda ja nga xam ne que ña ko bañoon mujj nañ ko ko nangul. Mm-hmm. ba tey ba muy def rajo privé bu njëkk ci Sénégal. Mm-hmm. Abdou Diouf mi nekkoon président de la République te nguurug Abdou Diouf amul lu mu tegul Babacar Touré ci fitna. Mm-hmm. moo ñëwoon ko ànd ak yeneen chef d'état ya nga xam ni muy Ould Taya bu Mauritanie ak euh, euh, président bu Mali bu tudd Alpha Oumar Konaré. loolu ndam la ndam la ndam lu rëy la da nga xam ne que wax dëgg yàlla euh, ku nekk war nga cee mën a mën nga ko war nga mën a sakoo. ginnaaw président Abdou Diouf moom digganteem ak président Ablaye Wade aussi xawoon na metti tuuti ndax euh, ñi ngi fàttaliku Sud FM traversé nañu fi ay jafe-jafe yoo xam ne ci jamono jooju la woon ñu bari jàpp ne nguur gi fi ne woon moo ko doon xeex. gis nga euh, nguur euh, presse bu nekk presse privée. Hmm. bëgg nekk presse bu indépendant mooy presse bu moom sa bopp. Hmm. foo jaar sa digganteeku nguur dina am jaxasoo dina am ñolt ñolt amoon na diggante Babacar Touré ak nguurug Abdou Diouf ay jafe-jafe mm. amoon na diggante Babacar Touré ak nguurug Ablaye Wade ay jafe-jafe mm. euh, gis nga li ngay wax nii am na ci situation boobu nii xëy nañu dikk yëpp waa Sud FM ci seen ci ci ci ci kaari police yóbbu leen mm. loolu ci nguurug Ablaye Wade la amee woon ndaxte dañoo waxoon la nga xam ne nguurug neexul woon nguurug Ablaye Wade loola du nekkoon loolu rek du nekkoon ay galgal galgal nañ fi Babacar Touré ak Sud Communication galgal yooyu ni Sud toll na fi ay jamono yooyu nii ñi bu pexeem nguuru Abdoulaye Wade juboon. Hmm. kon waxatuñu wax sud euh, sud. ah oui groupe sud. ndaxte def nañ fi ay jéego euh, teg nañ ko loolu nii euh, wax dëgg yàlla yàlla moom moo sàmm surtout communication ak xëy na ay pexe ka Touré ak xëy na ànd ak ay nawleem ñu mën cee xeex ba yàlla teggi jafe-jafe yoo xam ne Abdoulaye Wade tegoon na la ko ak nguuram loolu fekk na fi ñu bari ñun ñi mën nañ koo seede. yan jafe-jafe la woon. jafe mooy nguur bu dala ci sa kaw. Hmm. teg la impôt ya nga xam ne xëy warula koo teg hmm. teg la ay taxes ya nga warula koo teg buntu xataal la ba nga am alal mu nangu ko wala foo bëgg am sa projet ba nga xam ne yaa ngi koy bëgg naxasal ko hmm. te dëkk Euh, di la wili pande wala naan kat kii àndut ak man kii ku ànd ak man wala kuy ne yor état wala ku yor la nga xam ne bokk na ci mbirum état bul liggéey ak moom bul jëflante ak moom kooku yaa ngi koy néewal doole. mën na saa jottali ay publicité ak ay yu aju yëpp daanaka dana am jafe-jafe ngir jot ci. Euh, daawul woon jot publicité daawul mbaa boog du ko jot nam ko doon nam ko doon séntu wala daan nañ ko xeex ci ay impôt wala daan nañ ko xeex ci yenn taxes ya nga xamee ni que wala sax li ci gënoon a bon moo de boo dikkee nguur taxaw te fii fekkee nañ ko fii ñun ay seede lañu. Mm-hmm. nguur gi ni kat bu leen liggéeyee groupe Sud Communication wala ñii suñuy noonu lañu. te président république taxaw wax lu mel noonu ñi ànd ak moom wax lu mel noonu. Mm-hmm. kon ñi nga xamee ne même bu ñu nekkee ay homme d'affaires dootuñu yemee liggéey groupe boobu. Mm-hmm. wala daañu ko ragal wala daañu ko seen digganteeg moom daañu moytu na ci am. kon loolu ay pexe la nga xam ne dañu ko doon naxasal euh, di ko néewal doole seet fekkee dañ ko seet dañ ko waaye yàlla tegg na ko ba nga xamee ne tey euh, loolu lépp ci nettali la mucc mm-hmm. terewul nag Babacar lam ca waroon a dox ak lam ca waroon a taxawee taxawee na ko ci te kenn di ko mu saalit waaw justement nan la nan la def ba génn ci parce que nguur dañuy wax en général kenn mënul xeex ak moom ku mu song da lay daan lu ci bari alors Babacar nan la def ba mucc ci jafe-jafe yooyu surtout ñaari régime yu toppante mu demee noonu non lam ca def moo di xam nga euh, wala fi dañ naan dëggay mujj. Hmm. xam nga bu nit ki dee xeex te nga nekk ci dëgg te nga nekk ci lu jub. allah hmm. kuliyal euh, dëgg gaay mujj mooy féete kaw. kon Babacar jamono amoon na ay jafe-jafe surtout demoon na ci bëgg a xam ne que néew na doole te néew doole surtout kooku topp na ko ba nëgë sax mën naa koo seede. Hmm. Euh, nit ki bu la xëy na feebar ba euh, wala jàngoro ja sonaloon na sut mhm, mhm, mhm. euh, kon bu ci yàlla dimbalee xëy na ab liggéeyum ndeyam ak góorgóorlu ak ay pexeem ak xëy na tamit am na yeneen sénégalais xëy na jàppale nañ ko ci xeex boobu mm. euh, ak ay pexem ci bitim réew xëy na tax na ba Babacar situation boobu jéggi na ko euh, ba tey kër gi nga xam ne taxawaloon na ko mucc ginnaawam. Hmm. ndaxte kuy sos mbir lu mel ni euh, da ngay ñaan tey bo fi génnee mu des sa ginnaaw ñi nga xam ñoo ci nekk di ay doomu aadama di liggéey ak nekk say naw di ci dénk hmm. tey euh, nga sa génn àdduna war a tax wala sa télé. warta tax loola tax loola yam fii te Babacar yàlla may na ko loolu. Hmm. ba tax na teg na ko ci ay loxo yooyu di am nañ ci yaakaar ni bu continuer Euh, ca yoon wa nga xam ne moom xàlloon na ko. Mm. am nañu yaakaar ne que euh, groupe bi dina continuer euh, lañ ci doon séntu ak la ci la may jëriñ réew mi mu sax ca. Mm-hmm. alors ginnaaw président Abdou Diouf Abdoulaye wadd président Macky Sall moo fi nekk tey ñu nag gis ne moo Babacar Touré xëy na jàmm ji nekk seen diggante ak déggoo beeg jëflante bi amul woon ci yeneen ñaari régime yi est-ce que loolu tamit bokk na ci li ko dimbale. non Babacar Touré amoon naa ñëpp jàmm. Mm. Abdou Diouf bariwul bu ñëwee Sénégal ñu muy dem di seeti day dem kër Babacar di ko fa seeti daan ko ko daan seeti di ko nemmeeku ci kon wekk am na ci te boobu Abdou nekkatul ci nguur gi. xam nga loolu tamit xam nga jaar loo jaar jaar euh, lu jaar jaar boo am nga ba nga dem ba nawloo ko ba tey. Mm-hmm. Euh, boo dikkee ci am réew doo seete ñett nit wala ñett da nga ci moom bu dee ñaar wala ñett dana ca bokk kon kooka dafa am na cër ko jox. kon kooka euh, ak bañante fa. Mm. dafa am lu ngeen a seqoon muy kóllëre nga xam ne mm. kii kat la mu nekk dëggu na ci moom nga respecté ko ci. Mm-hmm. loolu am na digganteem ak Abdou mm-hmm. amoon na ci waaye Ablaye Wade ak Babacar Touré fu ñu toll. Euh, la la waa wax dox seen diggante dañu ko daan dox man am na lu ma ci seede. Hmm. loolu nii bu Ablaye bu Babacar Touré masaana gis ni que lii du noonu day taxaw ni Ablaye Wade lii du noonu nañ ko jubbantee nii wala defee nii lam ca war a wax ci lu wër mu wax ko lam ca war a taxawee la nga xamee ni que ba Ablaye Wade dina xam ni que lii Babacar Touré cëram la def na ko ci matal na ko sëkk kon loolu. Euh, ak xuloo ak xaay ak euh, euh, xaajoo wala ak aa ŋaayoo amul woon diggante Babacar Touré a Abdoulaye Dia Abdoulaye Wade amul koon ak diggante ak Abdou Diouf xëy na nit ñi mën nañoo ànd ba jëg lam bi ñëw dëkk mhm. waaye léeg-léeg ñu jote mhm. waaye nag aussi bu nekk nekk ci la nga nekk boo bu amee ko jalgati droit yi keneen ki kooku am na droit fipputal la moo doxoon seen diggante te bu fipp ba jàllee jàmm moo a am ak euh, salaam mhm. man xam naa jafe-jafe yi Ablaye Wade taxaw wala njabootam taxaw Babacar Touré taxaw nañ ko waroon mhm. def na lam ci def ak ngir Sénégal ngir aussi jullit ak morom ja waaye aussi ngir la nga xam ne jàpp nañu mooy wala mooy dooleel réew mi. Mhm. loolu aussi lu ñu mën a seede la. Mhm. diggante ak Macky Sall yàlla dafa dogal Babacar Touré ma fa may Macky Sall la mayu ko kenn. Mhm. ndaxte ñoom te ñoom yi amoon diggante moom Ablaye Diouf Abdou am ko diggante Ablaye Wade. terewul woon kenn ku nekk ci ñoom muy Abdou Diouf Ablaye Wade sax kon Babacar Touré liggéey ak yow. d'accord euh, Babacar Touré bañ ko bëggee dugal ci gouvernement Abdou Diouf euh, yàgg na mu ko. fal proposé nañ ko ko te dox nañ ko ba mu ni leen du ma ko mën a nangu man li ma bëgg te li ma euh, du dugg ci gouvernement lii sama yéene ak lii sama mébét mooy presse bi ma nekk ma liggéey ko ba nga xamee ne que la ma ca namm ko ci am mooy dooleel presse privée Sénégal boo loolu tere baa ko dugg ci gouvernement bañ luy woon dafa bañ a liggéey ak Abdou waaye dafa jàpp ni que dugg ci gouvernement nekk ci lii moo ko gënal mu mas bañ ba am Ablaye Wade dellu si nekk ci nguur di ko laaj xalaatam bëgg mu Babacar Touré liggéey moom Babacar Touré ni ko man de lii mun ma cee ànd fi ma nekkoon bu mu ngeen mëggee ma amal leen njëriñ mooy fi ma nekk ma toog ci biti amal leen njëriñ Macky Sall mii nga wax bi mu tikkee bëggoon naa liggéey ak Babacar woon Babacar Touré nangul ko ko ma li tax mu nangul ko ko mooy da koo jox cër ba nga xamee ni du cëru gouvernement waaye cëru organe de régulation ba nga xamee ni que ñi nga xamee ñoo nekk ci média audiovisuel yi kër gi leen di saytu di leen sàmm moom la ko dénk mu nekk autorité de régulation bañ ko ko waxee te Babacar nangu ko automatiquement daa teg ay condition condition yi mooy lan ñu bàyyi ko mu liggéey may ko afiyam te li mu ci ndàmm ci ay réforme ak li mu ci namm ci doxalit ñu bàyyee ko moom Macky Sall nangul ko ko am ña nga xamee ne ay nawleem di liggéey ci liggéey bi di ko dox seen sol seen daal di ko ni ko Babacar lii nga xamee ne que jox nañ proposé nañ la ko nga ci réfléchir gàntaloo ko woo waaye dañ lay ñaan nga gàntal ko nga nga nangul ko ko. nga mm-hmm. nangul ko Macky Sall. Mm-hmm. li tax ñu naan ñu lay nga nangul ko Macky Sall moo que euh, CNRA euh, amul benn président ba nga xam ne mas nga ko jox ka nga xamee ne moo di journaliste. Mm-hmm. dañ koo masoon jox ay magistrat wala di ko jox ay universitaire guleet Macky Sall dikk day jël ab journal jox ko CNRA kon yow mi nga xamee ne yow la jëkk mu tànn ko ci yow. danoo bëggoon nga nangul nu ko su ko defee Sénégal dugg ci loxoy journaliste bañ a ci génn mm. ndaxte kuréelu régulation de des médias réew boo mënti dem ci réew yi nga xam ne réew ñuy def ay ñoo lañ ñoo lañ def Sénégal ay nattango mm-hmm. wala ay royukaay journalistes yi ci seen ko yor mhm. ndax journalistes yi dañoo wane ni que yor seen bopp mën nañoo sàmm seen bopp mën nañoo saytu seen bopp ba ñoom la ñuy jox kuréel mhm. kon nag Sénégal dafa tardé woon ci mbir moomu dellu ci ginnaaw ba nga xam ne dañuy jox kuréel boobu di ko jox ay magistrat ak la magistrat yi man universitaire yi man ne ko yi ne ko dàq fuuf mhm. kon nag Babacar lii boo ko bañee di dina nekk loolu ni du gën ci presse sénégalaise te du sa cër mu xool ko seetaat ko xam ni que lañ ko wax aussi Euh, ña ko dox ak ña wax di ca ñaax. Mhm. xam na ni lu ko njëriñam la ak njëriñu presse mu nangu ko. loolu moo indi liggéeyu Babacar Touré ak Macky Sall. ñu euh, ñu jox ko mandat CNRA pendant six ans. Mhm. ba mandat CNRA jeexee. Mhm. Macky Sall man mën naa seede. parce que ci rajo laay wax. Macky Sall bëgguloon Babacar Touré bàyyi. loi bi tamit six ans la yem. man euh, kenn mënut ko renouveler. Macky Sall ba mandat bi jeex. am bu amoon la ko gënal wala ñun ñi nga ni nekk lañ ci pré bu ñu amoon lañ gën a Babacar Touré ra euh, dàbbali mm-hmm. ñu si ko dàbbali ko mu bañ ni man du mën a xeex ni que damay respecter loi mm-hmm. di xeex ni que euh, képp nañu jubal bu ñu tripatouiller institution yi may nangu ñuy tripatouiller institution yi pour sama njëriñu bopp wala sama bànneexu bopp wala sama euh, loolu ni man ma maa koy waral mm-hmm. mu taxaw ko tànnal ko ko remplacer du mën a continuer mu ni bis bu mandaam jeexee du ca teg vingt quatre heures loolu aussi leçon la bu nga xam ne Babacar Touré da ko mm-hmm. benn bis ci benn bis du mm-hmm. bokk dox ko wax ko kon tey bu fi Babacar Touré génnee àdduna. Mhm. kuy seede war ngaa mën a seede lu mel noonu la nga mhm. xamante ne koo dundoon ak moom. dëgg la te ñu ñu bari war nañu cee jàng alors moom lan la doon ragal ci dugg ci nguur wala liggéey ak ak ak nguur président ak yu ñu demee. Euh, mënu ma ni dafa ragal loon dugg ci nguur ndaxte ñii dugg ci nguur am lu ñu ko ëppale. Mm-hmm. amul lu ñu mën a war loo xam bu leen Babacar mënut a jàngal ja mënuñu koo jàngal. Mm-hmm. bu leen Babacar ëppul daraja mënuñu ëpp ñu ko daraja. Mm-hmm. bu leen Babacar ëppul euh, xam réew mi ñu ko gën a xam réew mi. dama bëgg ko wax lan la doon sédd lan la doon sóor ak euh, yu ni daal. xëy na man du ma mën a wax. Euh, du mën a xam lañ xam lancub loolu du mën a sàqami lancub kenn mm-hmm. waaye li wér te moo di xam naa ni nanguloo dugg ci gouvernement mm. proposé woor nañ ko ko ci jamonoy Abdou Diouf proposé nañ ko ci jamonoy Ablaye Wade mm-hmm. mu gàntal ko euh, nanguloo dugg ci gouvernement li ma la wax moo ci nekk nee na woon moom bu sañee day nekk di liggéeyal presse bi xëy na moo naa dugg gouvernement liggéeyal presse man loolu xëy na moom moo xam lu ko ko waaye li ma mën a euh, seede daal. Mm-hmm. moo di loolu bañoon na ko nanguwu ko woon. Mm-hmm. ah nit nag bu amee choix am. Mm-hmm. ni kat nii laa bëgg a doxalee da koy nangul choix boobu respecté ko. Hmm? Euh, moo tax man nanguloon ko choix boobu respecté ko. Euh, gis nga man yàlla dogal na bari naa lu ma seqoon nag moom. joxoon na ma cër defoon na ma rakk dina ma déglu. bi nga xamee ni que mbirum CNRA bi taxaw na ci ñi bokk ci sol seen dal ni ko Babacar lii munoo koo bañ ci bokk. Hmm? kon nag euh, xam naa ak dogoom naa ak dëggoom mhm. naa aussi ni que euh, argument bi décisif ci Babacar nangoo ne nekk président CNRA mhm. moo léegi dafa jàppoon ni que mandat CNRA dina jëmale presse kanam te Sénégal yëpp ku yor rajo wala yor télévision wala nga nekk observateur xam nga ni mandat Babacar Touré mhm. président du CNRA c'est un mandat qui reste dans les annales et dans l'histoire du Sénégal mu liggéey ko mandat liggéey bu rafet ba mu fay jógee tous les textes de réforme des médias da koo bind à la virgule près déposé ko fa bàyyi ko fa jox ko sos euh, gouvernement bi. Mhm. kon nag defe naa ne loolu tamit Euh, seede bu ñu war a indi la. dëgg la euh, ginnaaw relation wam ak euh, chef d'état yi ñett ñi fi jot a jaar mu fekkanteek ñoom ñu ñëw ci relation wam ak naataangoom yi dooree ko ci yoom mi nga xam ne. yow la ñu mm-hmm. tànn tey ngir waxtaanee ko delloo ko njukkal fàttali li nga xam ne moom la fi jot a def ngir ñi fi des suñu classe gi mën a am luñ ci jàng donc nga ñëwal ñu ci sa diggante yow personnellement ak Babacar Touré. man Babacar jàpp naa ne mënuñu liggéeyuñu sax man ak moom liggéeyuma ak moom. bokkuñu woon liggéey mais ku ma nawloo la woon hmm. ku ma joxoon cër la ku ma wekkoon la te la ma yëg ci moom ma nemmeeku ni yëg naa ni kii kat cofeel ku ma am ci moom ak respect ba am ci moom jox na ma bu ni toll hmm. ma ma def ko mag muy waxtaan ak man ci la nga xamante dafa jëm ci liggéey di waxtaan man la nga xamante ne yëfi boppam la wala la fi yëfi jamono la ak yëfi àdduna la ak yëfi nit ak moroom ji nit ki bu ngeen tolloo ba nga xamee ni lu ngeen toog bis bu ngeen xamee waxu leen te du ngeen wax bi du na nga def maa ngi fii ana waa kër gi jàmm salaam Babacar mun nu toog jour bis ba nga xam ne suñu wax wax lu lu ëpp une heure de temps wala deux heures de temps. Hmm. dama daan toog ba nga xamee ni que bu Babacar ma xool Babacar bañ añ ba pare wala xaaral bañ reer ba pare. ngeen soog a tàmbali lam la ma saa waa kër doon wax moom la waa këram di wax Babacar Touré di ko chee ba mooy woote xaaral ba ci kanam. Hmm? <laughs> Uh-huh. gis nga kooku yàlla na suñu diggante. Eh, nu eh, jege woon noonu. Mm-hmm. te yàlla boole nu tamit nu am lool ni méngoo nañu ay gis-gis ci yu bari. Mm-hmm. Eh, yooyu da doon fettal suñu waxtaan. Mm-hmm. tamit su ko defee léeg-léeg ñuy diisoonte xal di waxtaan ci yu bari ci doxinu jamono ak doxinu réew mi ak nu ñu war a taxawee. ci presse bi bu nu gisee la nga xam ne du noonu tamit daanu jóg sol sumu dal dox ko wax ko ma sàmbatu ko yëg ma dem batu ko yëg hmm. muy lu jëm ci presse bi wala lu jëm ci état bi wala lu jëm ci réew mi hmm. wala lu jëm ci Babacar euh, li ngeen ko xamul mooy dox na fi ay yooyu nii bu ko Sénégal yi xamoon daañu tas seen gémm yi xam ne que Babacar génne na réew mi ci guutal hmm, dinañ ci ñëw ci ci ci du benn du ñaar euh, kon loolu euh, vraiment doxoon na la nekkoon na lool ni dañoo boole Euh, Babacar bi ko bi muy daataa mhm. man damay def chronique léegi lan ci dama jàmba ma ah. def benn article daal euh, daal di arrêté di damay nekk congé. Mhm. boo seetloo damaa jël congé Babacar commencé bind. Mhm. Hmm? waaw def ay chronique daal di ma damay assurer sa intérim. <laughs> ba nga ñëw. ba nekko ñëw ma ne ko bind nii grand bu ma ñëwee danga fi fiy toog. continuer ndaxte kat. Eh, yow dafa naa ne buñ boo laajee électeurs yi. Mhm. Eh, dinañu dinañu préféré yow nga continuer intérimaire bi. Mhm. que titulaire bi toog continuer. Mhm. ñu waxtaan ko kaf euh, ree ci. ma ne ko daal léegi lenn lenn laa mën a nangu. su ma dellusee. man lundi lay def yow talaata nga jël. mun ma lu tax nga tànn talaata gaa bëgg may talaata waate. ma ko daal loo noo ko gisee yaa <laughs> hmm? loolu moo nekkoon waxtaan yi nga xam dañu ko woon waxtaan man moom. yàlla dogal euh, li def. Euh, avant may del si di reprendre o chronique. Mm. Babacar génn àddina. ni ma ko jàngate nag xam nga lan la. Mm. moo di Babacar da doon tàggatoo. Mm-hmm. te dafa am lu mu fi bëggoon a bàyyi. mooy lan. ndaxte ku toog ay ati at. jëloo sa plume bind. Mm-hmm. te daan wax naan dootuma bind pare naa ci presse. Mm. yéen ñi samay rakk wuutuma mate gen ko sëkk kon lu ngeen def noonu lay ànd. Mm-hmm. mu toog ba caagi xelam xëy ko bind. mu bind ñetti article rek daal di fiy génn àdduna kon defe naa ne que loolu boo amee tegtal ba mu ni la mm-hmm. kon da doon tàggatoo mm-hmm. bàyyi fi testament te boo xoolee lim bind ci yi mujj a bind mm-hmm. tey bis bu yàlla sàkk ku ko tijj da nga gis ni que kii kat ay jàngatal ay tegtal wala kii kat dafi am lu mu fiy bàyyi pour que ëllëg si biir buñ ko yëree gis digga kat nii wala doxale fii fii la war a teg kon loola bu doon bind man ni ma ko jàngate mooy testament la doon def kon loolu mooy Babacar Touré xëy na ba mu koy def jubluwu ci woon loolu. Mm-hmm. waaye lool la yàlla dogal. te jàngat boobu lañ ci mën am. d'accord leer na mm-hmm. alors lan nga mm-hmm. dund ak Babacar doyen Madiambal loo xam ne doo ko fàtte mu. li ma dund ak Babacar ko fàtte wax. lu la marqué ci seen ay jëflante. waaw euh, wala yu la ci marqué xëy na du du. li ma ci na parce que mënuma tëb tëb di wax ko nii. waaw dafa nekk Babacar ka nga xam dafa am respect bu ko ak cër ko jox. man yàlla dafa dogal may jiite union internationale de la presse francophone hmm. mooy kuréel ga nga xamee ni kuréel àddina bi journaliste francophone nekk ci àddina bi dañ ko booloo hmm. nekk kuréel ga nga xamee man yàlla dogal man maa koy jiite dañu def at mu ne dañu def benn rencontre international hmm. bi ñu mujjee def rencontre internationale bi nga xam ne 2017 Conakry dama invité Babacar def ko invité d'honneur ndaxte dafa am la nga xam ne exemple bu ñu war a wane ci àddina bi bi xam ni que journalisme Afrique sox euh, sax na fi sori na fi te bari na ay professionnels yoo xam ne ay royukaay lañ. Hmm. bañ fa indee Babacar Touré wane ko waxtaan ak moom nit ñi nañ ko. Hmm. waaye bañu mm, saafoonte nañoo moom te xam nañu dimension Babacar Touré. Hmm. loolu defe naa ne que ci ay jaar-jaar la. li nga xamante tamit am na ci jëflante ak euh, Babacar Touré moo di. nit ka nga xamee ni que ci lu mu ne ci fi boppam sax da nga koy dalay da koy wax ak mm-hmm. def na cër bu mu la jox hmm? ma wax waxoon naa la mm-hmm. ma def ko mag. Mm-hmm. Hmm? dëgg la euh, te dama wax naan ko su ma màggee yow laa a mel. Mm. ah ah kon euh, dimension bi nga xamee mooy li tax suñu diggante. Hmm. vraiment sori na te euh, ñi nga xam nekk nañ ci presse bi. Hmm. ak ñi nga xamee ne suñu ay nawle lañ nekk ci réew mi. Hmm. bu ñu xam bu Babacar Touré génnee àdduna bari na ñu dinañu xam ni que xëy na ñëpp ñàkk nañu waaye ma jàmbaal ñàkk na. ndaxte loola boole woon nañu. dëgg alors euh, hmm. yaa ngi koy junj sànq ñaari yoon Babacar dox na ci réew mi wax fi loo xam ne xëy na bu jiboon kaw mën naa jur leneen maanaam amoon na dayo boo xam ne euh, mbir daan na bëgg a tàkk ñu woo ko ngir mu dox ca tànki jàmm kon Babacar nekkoon na it genre diplomate ak koo xam ne da daan defar ci réew mi nga ñëwal ñu xëy na ci facette boobu nga junj sànq. Babacar dox na ci lu bare hmm. ci jamonoy Abdou Diouf ak jamonoy Ablaye Wade ak jamonoy Macky mi. Hmm. du benn du ñaar ak daay dina waaj a tàkk Babacar ñëw fay ko nit dinañu féewaloo Babacar ñëw boole leen defar leen mu war a wax nit a dëgg mu wax ko dëgg mm-hmm. mu war a jubbanti nit wax ko jubbanti du nekk ki nekk opposition wala ku nekk pouvoir la ci yemale nag Babacar amoon yàlla may na ko franchise honnêteté ba nga xam ne que la mu war a wax doomu aadama ko koy wax ci njëkk ak teraanga mm-hmm. ci ak ci sutura Babacar yamul woon foofu bari na lu dox diggante Sénégal ak ay voisins muy di Mali di Mauritanie di Guinée di Gambie di feneen Babacar daf cee def ay tànk ya nga xam ni que li ñuy wax diplomatie souterraine mhm. jubbanti ay situation yooyu ni moo naa yàqal Sénégal wala mu yàqal Afrique wala mu yàqal réew yooyu Babacar dox na ko diggante Sénégal ak yooyu réew mhm. exemple yi ci am yu bari la kooku wax dëgg yàlla. xëy euh, benn wala ñaar. non euh, loolu day jafe ndaxte xam nga kooku mi dox na ba muy dund mbir. waaw tey bu fi ne bu génnee àddina nga wax ko tegginuwul mhm. hmm? ñi nga xamee nag ñoom ñoo ko seqoon xëy na moom bu ñu ko waxalee seen bopp kooku moom seen responsabilité la mhm. waaye man du tegginu maanaam Babacar moo jubale diw ak diw wala mhm. moo dox lii ak lii hmm? dëgg la kon hmm. foofu mënees na caa jàpp ne ku amoon sutura la amoon na sutura nit ku baax la woon gis naa ci témoignage yi ay témoignage xëy sax man mi damaa bett ndaxte bari na ni man am na ay cas yooyu nii ñu mu nu mu nu mu taxawoo ay doomu aadama hmm. ci lu ma xam nit musu koo xam hmm. am na ñi nga xam ne témoignage la nga xam ne xalaatu moon taxawu nañu ñeneen ñu ñeneen ñu mel noonu wala ci lu raw la ma la ma xam hmm. kon Babacar nekk na ko nii nag wax dëgg yàlla bari na situation yi mu réglé fi bari na ñun ñi xettal na leen ci réew mi ci doole boppam wala ci pexeem pexeem mooy moom yàlla may ko mu mën a jot jot ci dit wala jot ci kilifa yeggee ko di ko diw kët nekk situation nangam nañ ko dimbalee nangam wala nañ ko xettalee nangam. Mhm. kilifa ga def ko kon loolu méritu Babacar Touré la. Mhm. te Masamba du ko xam ma dem ba du ko xam. Mhm. te loolu ma ban la nga xam ne fekkee naa ko ban la mën naa ko ci seede. alors Babacar Touré journaliste. naka la def ba yegg ci daay di bëgg a tàkk ci réew mi ñu woo ko ngir mu fay ko jéggi sax frontière yi réew mi di dem ba bitim réew parce que bi mu faatoo ñu bari ñëw nañu ci diggam ak président bu euh, Guinée Alpha Condé moom ci boppam seede na ko wax itam fi ko Babacar tolloon ak taxaw bi mu ko doon def Babacar Touré naka la jógee ci journaliste bi mu doon noon ba yegg ci foofa nga xam ni euh, fala newoon ba ni mu fiy jógee. néew ma la Alpha Condé rek waaye la mu seq Alpha Condé seq naa Ibrahima Boubacar Konaré. Mhm. seqoon naa lu ni toll mm-hmm. ah ak Alpha na lu ni toll ak Alassane Dramane Ouattara seqoon na lu ni toll ak euh, euh, mm-hmm. Abdou Aziz mi nekkoon Mauritanie wala Oultaya wala keneen mm-hmm. loolu yàllaa ko mayoon li ko maye xam nga lan la moo di journaliste da jote da ngay jote ci ñëpp da ji ñëpp dajeel boo dajeeg nit ki nag mu nemmeeku ci yow loolu di war na laa wekk wala war na laa xub ci wala wala doyloo loolu nit nit ki lay doon mm-hmm. yakoy tabaxal sa bopp dëgg la nga xam nit ki mu weg la wala nga xam nit ki mu xeeb la mm-hmm. Babacar nag yàlla dogal ne kilifa yooyu bañ ko xamee tamit weg nañ ko man man naa seede cër ba nga xam ne jox nañ ko ko ci Afrique ak àddina bi. Mhm. ci ay kilifa ay chef d'état ya nga xam ne que bu ñu léeg ñu jël seen téléphone woo ko ni ko Babacar lii ak laa gis nga ko gisee mun laa gis mooy defar. Mhm. Hmm? Babacar dem na ci ay réew ya nga xamee taxaw na fa jàkkaarloog njiitu réew ma kooka nekkul ci dëkk. Babacar Touré taxaw ànd ak délégation ànd ak ay nit ni ko li nga nekk hmm? wala li nga def nii du noonu. comme amul daal lu muy calculer wala ay lu muy sooraale kenn ñàkk looy calculer looy sóoraale. Mm. mais dafa nekkoon nitu dëgg. d'accord nitu dëgg nag léeg-léeg léegi di nga wax la nga xam sax doo ko doo ko calculer mën nga ko wax ba pare. <laughs> waaw doo xam ne li ma wax ma <laughs> wax waaw day am. <laughs> loolu mm. dëgg-dëgg am na Mm-hmm. d'accord alors ñu ñëw ba tey ci Babacar Touré euh, bi mu génnee àdduna itam bokk na ci li ñu ko seddeel Murit Sadikh koo xam ne euh, bëggoon na Touba euh, itam bi mu génnee àdduna am na lu ko firndeel mooy Serigne Mountakha xalif général de Mourides dafa dem teewee li nga xam ne moom moo di julli ba taxawu Babacar Touré alors diggam ak Touba lana ko nas. Euh, Babacar Touré dafa juddu nekkub taalibe mhm. juddu ci euh, famille ba nga xam ne ay taalibe la ñu murit sàddix mu màgg ci loolu nàmp ci loolu euh, bi ko yàlla baaxee tamit mu gën a fettali digganteem ak Touba Babacar Touré man ci moom laa xam ka mm. nga xamee ne Seex Sëñ Muntaxa mii nekk xalifa général des Mourides mm. da daan ay fan ay semaine kër Babacar Touré. kër Babacar Touré. ah oui spécial ba nga xam ne ak jumaam ci nga xam ne sëñ Mountakha dafa daal nekk. boobu sëñ Mountakha xalaat ñu woon nekk xalif général des Mourides. ndeysaan. loolu sax na ko yéen kër Babacar Touré di ko di ko ngapparu kon loolu lu ma dundal moo fekkee lu muy sëñ natal ko baa di ko fii mooy sa makan dëkk fi a hmm. defar fa kër ga nga tey kan ku ñëw mën nga faa dal hmm. yàlla dogal mu génne àddina si moom wane ko ñëw ak ñi mel sëñ Ndaxa moo sol hmm. ko julli ga wax ni nañ ko ko defal nañ ko ko robal fii béréb sàngam moo tànn béréb bañ ko rob mhm. kooku defe naa ni yàlla mayu ko taalibe yu bari mhm. kon loolu bu amee te a fekke ko dund ko man naa koo seede mhm. yemut foofu nag Babacar Touré ak Touba a Touré am na la nga xam ne dox na ko Touba lu ma a ak la sax léeg-léeg boole na ma ci xam euh, xew-xewu jamono yooyu nii léeg euh, koy euh, dund Eh, ay coow di am ci jamono ay ñoltu ñoltu di am ci jamono ma fekk ay situation yooyu nii coow la Babacar Touré dox na ci ay tànk yooyu ni mooy wax ak kilifay Touba. Hmm. wax ak àddina pour fay coow loola wala fexe ba nga xam ne kat gis-gis bañ cay gisee Touba du doon gis-gis bu tolloog wa hmm. loolu du benn du ñaar mën naa seede. Hmm. te damay wax ci rajo waa nga may dégg kilifa yi nga xam ne tey yàlla bay na leen baat Touba ñi ngi may dégg tey ñu ci bari ci ñoom mën nañoo seede lu mel ni li may wax nii. Mm-hmm. d'accord alors Babacar Touré ba muy door jamonoy président Abdou Diouf xëy na metti woon lool mu am fu mu fekkoon presse ba fi mu bàyyi presse tey ci li nga ci xam est-ce que am na satisfaction maanaam benn sentiment wu mission accomplie selon fi presse bi tolloon ak tey fi mu toll ak itam bu dee am na mbir yoo xam ne am na ci te mu wóor la neexu ko ci nii yëf yi doxee. Euh, mën naa jàpp ni que euh, Babacar Touré ci presse réussir na mission te war naa mën a jàpp ni que la ko ci waroon def na ko ci xam nga moo tax ma wax mm. mooy ba muy def presse presse privée amu fi woon. Mm-hmm. mu commencé ko ba loolu la yàlla saxal ko. mu metti woon aussi. mu metti woon comme ni ñu ko waxee ci njëlbeen waxtaan bi. Mm-hmm. mu commencé journal ba nga xam Euh, wóorul woon sax di dina mën a fay lu ñu dina ko mën a fay impôt bi rek dina mën a génn. Mm-hmm. ñu dem ba nga xamee loola dox na ba nekk quotidien mm-hmm. ñu ni déet mu sax rajo ba nga xamante tey rajo yi nga xam ne ñuy ëpp ci déglu Sénégal ci la bokk. Mm-hmm. mu nekk rajo ba nga xam ne ouest francophone moom la. mu taxawaloon chaîne de télévision ba xam ne mu jur sotti tey ñu toog ba nga xamante booba kenn xalaatul woon télévision privée waxu la rajo privé. tey buñ demee ba rajo privé ni xos. télévision privée yi ne xus. Hmm. kon defe naa ne kooku réussir Babacar Touré la satisfaction la. Hmm. Babacar Touré moo njëkk a ubbi rajo Gambie rajo privé da ko ubbi Sénégal mu dox mu dem ubbi ko Gambie. Hmm. xëy na yaay jamee ko mujj kon fépp fa nga xam ne que muy Sénégal di bitim réew fu ñuy dox ci démocratie ak fu ñuy jëmale euh, presse kanam ka taxaw na ci. Hmm. lan mooy indi Yaya Jammeh tëj rajo boobu Gambie. non parce que xëy na da Sud doon liggéeyee Sud FM Banjul la mu liggéeyee di wax la xew ci réew ma hmm. neexu woon Yaya Jammeh. Hmm. Euh, xëy na yàlla mayoon na ko doole tëj ni bu ko neexee tëj ab rajo. mu tëj rajo ba loolu taxoon rajo ba rajo rajo Sud FM Banjul tëj. Euh, kon na ko fi. kon tey bu ñu jàppee ni ku mel nii sos na lu mel nii tey teraanga ji topp na ci ba euh, jàkka ji jàkka yi bari nañ ba ku nekk ngi noddu mm-hmm. def naa ne kon nag war nañ ko cee delloo njukkal mm-hmm. terewul presse bi Babacar Touré ñàkkul ni am na lu nga xamee na nga xam ne gënalu ko ci mm-hmm. li ko ko ci ñàkk gënal mooy ñàkk professionnalisme bi nga xamee ne commencé nañ koo gis ba def sa bopp star ku tëb bëgg nekk vedette lu nekk lu neex waaye wax loolu du du liggéey journalisme. Hmm. musta nangu lu mel noonu. Hmm. naka la bëggee woon journaliste. li mu bëggee woon journaliste mooy journaliste fonk boppam. Hmm. fonk kàddoom. ñi mu ko seqal nawloo ko. waaye journaliste bi nga xam ne la neex wax lu la neex def nu la neex mel def naa ni ñu ko seqal duñ la nawloo loolu la Babacar Touré doon bañ. te loolu nag bu ñu waxantee dëgg rek ñu ne neen la. am na ci réew mi te xam nga ko ci man xam na ko ci lo bi. la nga xam ne lu bañ ba ko doon yàgg mos naa ne neexoo ci presse dem nañu ba nga xamante ni li ñuy wax réseaux sociaux dem na ba xëy na presse bi dañoo wàcc seen ànd ba ñoom réseaux sociaux yi dañoo war di taataane information pré waaye léegi presse sax di taataane information réseaux sociaux yi loolu tamit defe naa ni lu nekk loolu nii Babacar Touré gën a loolu na ko mhm. du bokkul ak li muy jàngale bokkul ak li mu doon doxee mhm. Babacar Touré ko bañoon ba nga xëy daa journaliste seen métier tàggat seen école de communication mhm. muy ISIC waaw loolu tamit def naa ne ay nga xam ne ko mhm. nit boo fonkul métier mhm. bëggoo nit ñi def ko ci anam yi nga xam ne moom la ñu gërëm mhm. kon doo ubbi fu ñu koy jàngale loolu Babacar Touré def na ko alors euh, xëy na fi ñuy jeexale euh, mooy euh, njukkal li nga xam ne delloo nañ ko ko muy tuddee ko maison de la presse ñu bari jàpp ne nag Babacar Touré moom loolu yaayoo woon na ko sax bi muy dund mu fekkee teraanga ji njukkal loolu ko président Macky Sall delloo noo ko gisee ma Madiambal Diagne njukkal lu rafet la te man lu ma neex la. Hmm. ndaxte bu dee Babacar Touré dafa a euh, àdduna. Hmm. ñu mandargale aw turam maison de la presse. mu nekk barab ba nga xam ne journaliste dañ fay daje. Hmm. presse bi yëpp di fa daje di àndandoo di nasandoo di kërtandoo di tegandoo. mu nekk mandarga presse ci am réew. kon bu ñu ko tuddee Babacar Touré dina rafet ci dég-dég bi dina rafet ci jëf ci. kon kuy journaliste. dëkk ci réew mi waxuma la di Sénégal sax waaye ci bitim réew. bo hmm. boo ko diggee ne man de ba ma ba mbir mi xewee. bari na journalistes yu nekk Afrique ak yu nekk Europe. di nga xam ne dañu maa message di ko rafetlu. Hmm. Euh, li nga wax nag ni mu fekkoon ko ci dun hmm. xam nga ñu bari dañ naan Sénégal dañuy xaar ba nga dee ñu soxlaa cëral. waaw euh, baaxoo wuñu di tuddee monument nit kuy dund. kon li gën a jekk jekk mooy nit ki génn àdduna ci dëkk mu ni ma di ko fàttalikoo. Hmm. waaye bu ñu fàttalikoo nag nii ba muy dund. Hmm. mak Sall cëral na ko. Hmm. xaarul ba mu génn àdduna mu soogay cëral ndaxte koo dex jox lu toll ni président CNRA da ngaa nangu kali euh, euh, compétence nangu mérite am. nangu dayoom. xam ni que lii mate na ko nga jox ko ko. kon nag cër la sagal na ko. warmaal na ko ci dundam. Mhm. mu génn àddina mu mottali kóllëre googu mooy tudde ko maison de la presse. Mhm. man loolu lu ma neex la lu ma rafet lu la. Mhm. alors tàmm nañu nag bu ñuy waxtaanee kilifa euh, surtout ñu lim ay jikkoom ak mbir yoo xam ne yow wér na la ni ñi mu fi bàyyi ñu war a topp ci tànkam bu ñu ci tegoo dana ñu mel ni moom baa ñu jege ko tey boo ñu doon dikkal ci ay jikkoy euh, ndem si yàlla Babacar ture ci liggéey bi ak ci dundin wi limal ñu jikko yooyu ñu euh, jagleel ko ndaw yi. man de li may nemmeeku ak di ko jàpp ci Babacar Touré mooy ku fonkol boppam la ku bëgg boppam la ku bëgg lu baax la ku jub la ku laabir la ka nga xam ne fonk na métier journaliste bu luy gën ci àddina ci loxoy journaliste lay nekk loolu man mën naa ko wasate loolu loolu dundee loolu moo nekkoon li ñuy wax sacerdoce te fu mu mas a toll du mas a nangoo seetaan journaliste bi tum ranke bu xamee journaliste bu nekk ci tolof tolof wala journaliste bi nga xam ne xëy na am na lu war ci moom matewu ko Babacar du ca xaar kenn dañu def képp tolluwaay kàttanam loolu wax dëgg yàlla maa ngi wax ci sab rajo. Mm-hmm. bari na ay journalistes yi nga xam ay dizaine wala ay centaine la ñu ci Sénégal di ma dégg. ku ci hmm. nekk ñoom dund nga lu mel ne hmm. na sutura journaliste. Hmm. bëggoon na daraja journaliste bëggoon na ñuy wekk journaliste. na loolu koy def ci boppam. lu la ko Babacar Touré yéene wala lu la ko nit boo ko deful sa boo ko cëralewul sa bopp kenn du la ko kon nag loolu ay jàngat yi nga xam ne ko am ci moom. doyen ñu ngi lay gërëm xanaa ñu bàyyi la rek nga tàggatoo yi. waaw kon maa ngi lay sant la gërëm mm-hmm. euh, damaa jàppoon ni waxtaan wu gàtt lay doon mm-hmm. waaye yow da nga maa piégé <laughs> <laughs> waaye nag euh, waxtaan yu neex na te euh, bu ci tegtal bu ñu mën a jëriñoo génne mm-hmm. alhamdulilah loolu mooy yéene di loolooy sabab jërëjëf te maa ngi lay nuyu nuyu say auditeurs yëpp jërëjëf doyen Madiambal Diagne moom la doon dalal ci waxtaan wi doon waxtaane Babacar Touré jubluwaay bi itam doonoon delloo ko njukkal waxal ko lu baax li nga xam ne moom la ko xamal ci ay jikkoom waaye itam ñëwaat ci liggéey kenn waru koo fàtte ñu koy mu jëm gënal ko fuuf fi mu jugee te itam lu mu euh, ko ko tàbbal ko di ko jaale ñëpp di ko jaale doyen parce que xam nañu sa xarit la di ko jaale aussi sunu ay naataango yu Sud FM yëpp kon euh, mbokk yi seen émission démb la woon ci Rewmi FM euh, ñu doon ci dalal suñu doyen Madiambal Diagne gërëm leen bu baax a baax ci déglu bi gërëm Diawa Diallo mi fare woon ci wàllu machine bi Fatou Thiam Ngom moo nekkoon ci kaddu gi dig daje beneen dimanche incha ñu wax waxtaanee leneen ak keneen bàyyi leen xëy na ak kàddu yu ndem si yàlla Babacar ture yi euh, tëjee ko waxtaan wi euh, di sàkku ci ñëpp aussi ñu ñaanal ko ñaanal bépp way dawlu yàlla wàccee ci ñoom yërmande jéggal leen taxawu itam njaboot gi ñu fi bàyyi ñu yendoog jàmm jërë ngeen jëf. je pense que y a de l'espoir y a de euh, cette presse là moi quand je regarde je suis assez ému parce que je vois des gens qui ont l'âge de mes enfants de mes neveux à quel point c'est dur. Je sais à quel point euh, les gens manquent d'encadrement, de coaching dans les rédactions. Nous, nous avons bénéficié de la part d'aînés, euh, de coaching, hein, euh, de soutien. Et puis, euh, nous avons appris le métier en le faisant. Parce qu'on ne l'apprend pas seulement à l'école. À l'école, on vous introduit à des techniques professionnelles, à la déontologie, à l'éthique. Euh, je pense que il y a des questions euh, qui doivent être réglées d'abord dans les rédactions. Euh, il faut que les journalistes se fassent respecter. Et pour se faire respecter, il faut se respecter soi-même. Et ça va euh, dans ça, euh, du comportement individuel à l'orientation de l'article que vous écrivez ou de la photo que vous publiez ou de l'image que vous montrez. Il m'est arrivé de dire à des journalistes que j'aime bien, en les taquinant, vous savez, il faut éviter une chose. Il n'y a rien de pire pour un être humain. C'est la haine de soi. C'est quoi la haine de soi C'est qu'on se projette en se disant l'enfer c'est l'autre. Et on dit du mal. Et on ne cherche que la petite bête. n'y a rien de positif dans ce que fait l'autre. Ça, plus que la, la, les menaces là dont vous parlez, c'est ça qui menace de tuer les médias. Parce qu'aujourd'hui, les gens se disent, ils sont là pour critiquer, ils sont là pour chercher la petite bête, ils sont là pour dire du mal. Et ce qui est grave, dans, à mon avis, c'est que quand il y a des querelles entre journalistes ou entre groupes de presse, Il y a le tempérament des uns et des autres et euh, le manque de tempérance. Mais il y a surtout que les journalistes mènent le combat des autres dans beaucoup de cas. Ils n'ont rien. Souvent, moi, j'entends des gens, je dis, écoutez, le journaliste n'a aucun, aucune prévention vis-à-vis -vis de vous quand des gens se plaignent à moi. Je dis non. Mais quand je lis l'article ou quand j'écoute, je dis, ah, qui a intérêt Parce que celui qui donne l'information, celui qui dépeint d'une certaine manière, il a intérêt. Donc ça, je crois que c'est des choses. Moi, quand je rencontre des jeunes journalistes, j'essaie de partager mon expérience. Peut-être que j'essaie de, de, dire, voilà, ce que, ce que moi, je pense que nous ne devons pas faire. Moi, je crois qu'il faut être extrêmement positif dans ce que vous faites. Maintenant, je crois que la concurrence, elle est saine, elle est salutaire, mais il faudrait qu'elle soit saine et émulative. Le concurrent n'est ni un ennemi ni un adversaire. C'est quelqu'un qui fait une offre dans le même segment de marché. S'il y a des règles, qui sont des règles écrites ou des lois et règlements, tant mieux. Mais les meilleures règles à observer, c'est les règles éthiques et déontologiques. Et c'est la première régulation. C'est-à-dire que si nous faisions cela, nous n'aurions même pas besoin de régulation externe. Et c'est dans les rédactions que ça doit se faire.